buur géwal mooy li ma wax gars yi bu soxla moom ñëpp ñàkk ndax sama xarit la te loolu dafa yàgg wolof Njaay ne lu yàgg dëgg la maa ngi lay fay. Abba ak Saint-Valentin souvent souvent dañu gis yenn religieux yi euh, am na sax tey kilifa gu wax ba ni Saint-Valentin feetu njaalookat yi la. waaw loolu de moom ku ci nekk ak sa xalaat waaye ñun moom donc comme dañu nekk ci millier boo xam ni da am ay événements yooyu présenté ak yooyu donc bu buñ la woowee soxla la buñ la joxee. wéxal da ngay dem rek présenter mais ñun dañoo ñëw en tant que ñuy liggéey donc loolu moo ñu indi fii quoi. mais Mamba bon gis nañu tey seen sortie bi bon xaw na xaw na gàll gauche hein. mm-hmm. ah. waaw mais aduna euh, moom noonu la man vraiment man pour man réussite événement euh, mooy nga ñëw li nga war a def yëpp nga def ko. Euh, prestation yi nice li nga xam ni moom mooy événement bi lépp jaar yoon et puis spectacle am ci kaw seen bi te gis naa ne ñu ngi assuré bu baax a baax a baax. Mm-hmm. sa doom day nee il est le chanteur du peuple d'accord nga ci. laajoon nga ma ko ma waxoon la li ma lay wax nga laajaat ma ko tey donc xoolaatal vidéo bi ñu mujjee def fële après nga tontu ci sa bopp. déedéet <laughs> ok ok donc en tout cas euh, xale la boo xam ne mu ngi liggéey euh, te peuple bi bëgg nañ ko yow xam nga ci dara man xam naa dara donc bu taxee boo wax loolu euh, peut-être am na fu mu ko teg te yaakaar naa ni loolu dëgg gu wér la. diggante Abba animateur animateurs yi am na benn vidéo tey bu gis sur le web ben comédien wax ba xawa accuser accusé Abba euh, mu xawa a ñu ba def na xol nga vidéo bi. non non gisuma ko dé waaw ben comédien wala ben animateur. ben comédien. comédien wax ba attaquer man nak gis nga man xol du ma seetaan parce que temps bi mo bariwul mais dal xamna ni comédien ak animateur warul wax ñukoy jël au premier degré.

donc boo bëggee jàll wala nga bëgg sa yëf dox wala ñu bàyyi la xel faaw nga laal benn affaire ci Aba ndel wala lii wala lële mais nga wax la nom de Aba boo ko waxul fi réew mi toll ni ak fi réew mi toll ni waaye buur baay ma waayo